Mhm. nga bàyyi dem fac droit am licence mais itam def nga li nga xam ne moo di concours ENA boo xam ne dañ la recalé ci entretien bi par loolu yëpp nag. nga moom laay wax mooy carrière ambivalente bi. te ba léegi je suis comme ça ba léegi je garde cette liberté. Mhm. dans la vie. man mun naa sax nekk administration deux ans exclure ma ñu ne def na disponibilité pour dem liggéey dans le privé dellu dem ut deux hectares dem bay ci. Mhm. je peux faire ça. parce ñun système bi ñuy dund parfois da lay tënk ci ne lii ngay def ci lii rek ngay nekk. mais parfois boo explorer lu bëri gis nga jëlal Cheikh Anta Diop à l'origine est-ce que scientifique la woon. wala littéraire la woon mais tey mënoo wax ne littéraire la wala scientifique. philosophie boo ci duggee mu xarañ histoire boo ci duggee mu xarañ mathématique boo ci duggee mu xarañ. mais ESP ni mu toll ngay commencé ko bàyyi. foofu foofu laay ñëw c'est-à-dire boobu day man li ma gëm laay wax de. man mm-hmm. li ma gëm laay transmettre. bu ci kenn limité wu ci benn affaire alxuraan dañuy wax ne laa tadxulu min baabin waahidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa loolu yonentu yàlla yaqub moo ko doon wax yuusuf moo doon ko wax doomam bi kon astafurlah ne leen boo leen dem bu leen dugg ci benn porte xool leen ay porte yu bëri loolu daf loolu nit waroo limité wu ci àdduna lu ne mun nga ko def mun nga explorer lu bëri donc man bi may amee bac sama mag bu jigéen maa ngi moom ñoo amandoroon bac moom série s amee bac comme moom dafa bëggoon ESP mu daal di dem day inscrire ESP ci option privée bi sam papa daal di ma ne ESP école bu baax la ànd leen nañ ñaar ngeen dem fa bi ma suggéré loolu ma dem offre de formation bi fa nekk doyu ma mais sam papa na ma ko waxtaan ak man ba ne ma ESP école bu baax la boo fa génnee am nga chance insérer wu demal ma fekk fa offre bi li loo xam ne man l moom rek laa mun def mooy compta gestion ma dal di ñëw commencer formation comptabilité gestion novembre décembre janvier ma ne franchement lii mënu ma ko wéyal parce que y beaucoup de chiffres <laughs> ñaareel bi aussi franchement j'aimais pas parce que mhm. esprit critique bi ma am culture général nga ñëw ñi may calculer ay cinquante millions fii ay cent millions di ma defaloo ay bilan di ma defaloo ay journal xam nga ay grand livre franchement man c'était c'était trop aérien pour man ma ne non franchement lii du bëgguma ko en pleine année académique sama papa boobu mu ngi fay chaque mois soixante quinze mille mu ngi fayal sama rakk cent quinze mille inscription yi xaw ma li mu fay bëri woon na chaque jour bu ñuy dem di jàng ku ne dina jox jox la jox 1500 wala 2000 léegi nga fayal doom loolu inscription en pleine année mu ne moom dafay bàyyi. kon bañoon na te bu bàyyoon année bi noonu la koy pertee mu ne mais yow xanaa da nga dof mhm. ma ne ko damay bàyyi parce que lii bugguma ko woo na ci ba woo ci. samay nijaay samay mbokk ku nekk ñëw pour convaincre ma pour ñoo xam ne dañoo jàng français jàng arabe pour ñooñu wan ma ne ma compta gestion baax na mm-hmm. ma ne ko lii dama koy bàyyi ne ko lii dama koy bàyyi période boobu comme dañ ma orienté woon fac droit dew ma woon inscrire ba inscription yi jàll janvier bàyyi naa maanaam normalement dama war a perte année bi mm-hmm. si laa déggee ñi ne ñu inscrire wul te ñu orienté woon mun nañ ñeen orienté ci école privée yi ci université établissement privé d' enseignement supérieur yi. si laa bokk suñu état orienté du UCAT UKAO la. UKAO donc UKAO nañu ma nañu ma orienté. au mois de mai 2015 maanaam bi bi nit ñi di waaja jeexal seen année pe seen première année man ci lay doog a tàmbali sama première année UKAO. Hmm. donc ñu orienté ko ci école bu ñu wax IMES. Hmm. ci biir UKAO lañ affilié wu. mariste la nekk institut mariste d' enseignement supérieur ma def fa trois années. licence en sciences politiques et relations internationales état moo fa orienté ñi ñu orienté ci école privée yi ñun nag suñu génération y avait pas euh, euh, difficulté yi am yi nga xam ne ñi naan étudiants yi dañ leen di génnee parce que état fayul franchement ñun suñu jamono amul woon loolu mm-hmm. mais quand même difficulté bi amoon mooy état na lay orienté nit mu jugee ci village bu sori ñëw fii parce que amoon nañ suñuy mbokk bu ñu ñëwee fii rek fu ñuy dal day métti ñoom mm-hmm. ñu orienté la ne la année bi aide soixante mille lañ lay jox amuloo bourse loolu moo nekkoon première faille deuxième faille bi mooy nga nga jàng ba licence nga foofu léegi lan ngay def. parce que master daan ñu ko woon assuré. samay collègues yi fa jaar am na ñoom ñoo xam ba léegi defuñu seen master parce que ñu ngi kuti kuti ju góorgóorlu pour am dara mais ba léegi amul lu ñu defee seen master donc man. mi mhm. ma paree foofu année bi si topp toog naa un boo xam ne yeggalu ma sama cursus. après nag si laa préparé si laa def sama master en sciences politiques et relations internationales ci ginnaaw lu nekk côté Liberté 6. ma daal di préparer concours ENA bi ngay wax comme j'étais tellement sur de moi jàpp ne concours dama koy réussir ma ENA dafa bëri ay filtre ma jàll si bëri ay roq lool jàll admissibilité bi ma demee entretien ñi ma xamoon ñëpp naan ma c'est fait c'est fait pour toi quoi dem nga entretien dangay ngay jàll quoi j'étais admissible tellement confiant je me rappelle ma ñëwee si sujet bi ma joxoon les politiques de l'aménagement euh, les politiques de désenclavement au Sénégal sujet bu saf mais j'avais bien traité j'ai parlé de désenclavement j'ai parlé de Puma wax naa PUDC wax naa ci décentralisation et cetera ma jàpp ne damay am ma ñëw awma dara j'étais un peu désemparé période boobu ma daal di euh, dund période boo xam ne dama xaw a wàññi tuuti jàng bi daal dem commerce dem sama place su papa di fa def. boobu da nga décroché woon daal si jaar. non non parce que dama noo xaaraat concours quoi. Mhm. parce que tellement j'étais confiant ba ba jamono jooju laay wax dama jàppoon ne man am na lu xew mais man war naa réussir concours bi. Mhm. xaw ma nag la moo xew la ñëw juum ci man <laughs> wala dañ maa xeex je savais pas <laughs> mais en réalité da sa bopp nga xam mais am na ñu la gën a jàng ëpp la mhm. xam-xam gën la méritant. xëy na sax ñoo xam ne chance bi nga am ay parents yu xaw am tuuti moyen amuñu ko woon. donc ñooñu ñoo la gën a réalité loolu du wax. promotionnaire boobu sax am na ñu ma ci mujj xam plus tard ay nit ñu brillant ñoo xam ne boo jëflante ak ñoom di nga xam ne ñii c'était normal nga pousse ñoom ñu toog donc du coup ma dem di commerce en place papa donc euh, Dakar rue Diouf di xëy di liggéeyi foofu mu suggéré ma ne ma pourquoi pas nga inscrire master beneen master à l'époque comme maa ngi Pastef après dinañ ñëw ci parcours mm-hmm. politique bi xay na j'avais lu pétrole et gaz au Sénégal chronique d'une spoliation livre bi ma ko liiree jënduma ko woon nag ci ñu ko jot ci internet bi. ci <laughs> bi ma ko liiree. j'étais tellement ébahi ci li ci président Ousmane Sonko développé li may wax nii du populisme. yàlla laa koy séddaloo. bi ma ko liiree laa leen damay def formation ci lépp lu jëm ci pétrole. Mhm. ma daal di war a def master beneen master ma daal di dem di wër école yi si laa gis ISM. Mhm. am offre de formation droit et gouvernance des énergies et des mines. ba ma ñëwee ñu ne ma yow lii mënoo ko def master 2 il def master 1 en foofu laa commencé def trois PAMSA def master en droit privé droit des affaires master 1 bi presque loolu la woon y avait pas beaucoup de matière ci jëm ci pétrole spécialité miine deuxième année bi nag si laa def euh, donc euh, gën a spécialisé wu ci droit et gouvernance des énergies et des mines donc en 2021 bi sax laay doog a pare foofu sans formation ci di jëm ci secteur boobu moo waral ma nekk moo tax man je suis plutôt politiste que juriste mm-hmm. parce que euh, Sciences Po njëkk def que droit moo tax man Pape Moussa c'est le lieu de dire man droit ni ñu koy defee ni ñu koy présenter Sénégal ci télé yi wala ni ñu koy appliquer man d'accorduma si parce que dañuy dugg ci benn juridisme boo xam ne c'est comme de la mécanique quantique. daf lay jaaxal daal dañ koy def affaire ingénieur yi boo xam ne. citoyen duñ ko xam. man bu ma defee Sciences Po am ouverture d'esprit toujours su may analyser un texte de droit wala une situation juridique dama koy coller ak la réalité. ak esprit bi ak. motif bi dama koy contextualiser parce que texte nay ànd ak contexte. maître loolu moo tax ma nekk dinañ si ñëw baax ba ñu dugg ci institution judiciaire yooyu la ak réforme yi nga xam ne moom nga xalaat que ni bu ñu ko defoon mu soppeeku mais euh, da nga def après greffier euh, pourquoi nga def choix dem nekki euh, greffier. waaw honnêtement contrairement à l'ENA nga xam ne dama bëggoon nekk un fonctionnaire pour servir Sénégal greffe bi ma koy def tijji nañ. affaire bi eh, concours bi am ñu ne ma defal wax wax ba ma def. Hmm. concours bi inscrire mais boobu maa ngi def master 1 comme li ma lay wax. parce que hmm. boobu rythme bi ma amoon dafa métti woon lundi ba vendredi maa ngi sama place su papa ku xam commerce Dakar 6 heures ngay xëy. ci fajar en 2020. voilà 19 hmm. heures ngay wàcc. timis timis dalay fekk ci mbedd bi. donc samedi ak dimanche laa doon def ay cours week-end sama master droit et gouvernance des énergies et des à l'ISM te samedi ak dimanche 9h ba 17h donc man awma noppalu lundi ba dimanche mais boo jaaree daara loolu doon problème si yow samedi dafa am cours yoo xam ne cours 22 heures la ISM. maanaam boo defee samedi dimanche defaat beneen samedi. dimanche bi doo def cours. loolu boo ko amee ci at bi ñaari yoon nga koy am. Hmm. donc man samedi boobu amoon cours 22 heures ma war ko pare ma ne dimanche bi malgré que mooy concours CFJ mais man du ma dem defi concours damay toog noppalu. parce que man xaw ma métier greffier dañ maa wax déposer concours bi baax na mais sama benn xarit maa ngi koy rendre hommage Ibrahima Bob c' est un contrôleur da doon a def master boobu noonu moo ñu daan sax pay ndékke parfois ñu toog di waxtaan mu ne ma man ci enseignement laa tàmbalee maatam xaw ma Louga coono wax ma coono yi mu ci daj tey ma nekk contrôleur des impôts kon bul xeeb métier benn te yow xamuloo métier bi parce que après xam naa <laughs> du métier mu ñuy xeeb mm-hmm. ñaareel bi mooy tàmbali la nga liggéey administration gi inséré wu fii ba 53 ans mën nga def concours bu la neex lu nee mën nga ko doon. Mm-hmm. donc man ci laa ci laa moo ma convaincre ba le lendemain ma xëy dem def concours bi bi ma defee concours bi j'avais deux mille candidats mais état direct bi vingt la war a jël donc vingt sur deux mille c'est un pour cent mmh. deux mille six cent candidats sax vingt lañu war a jël donc c'est moins de un pour cent mmh. zéro virgule neuf et quelques pour cent bi ñu defee phase d'admissibilité nañu génnee liste entretien bi sama benn xarit Mohamed Diop enseignant la moo ma woo moom defoon na ko mu daal di ma ne dem nga entretien ma yéeg fekk sama papa comme moom mooy sama conseiller ci lépp ma fekk ko si jàkka ji mu toog ma ko dem naa entretien concours greffe mu daal di ree ne ma xanaa entretien ku jug dem ci parce que tellement demoon naa entretien concours ENA donc demaan naa entretien concours greffe dafa yomb quoi entretien boo xam ne ci conditions yu difficile nañ ko defee quand même parce que Covid dugg na Sénégal mars 2020 donc il fallait que ñu taxañ entretien bi balaa Covid ñiy def ay mesures restrictives mais ñi def magistrature ñoom plus tard nañ def entretien au mois de juin mais ñun mardi matin vers midi nañ ñu woo nañu indi leen seen dossier ngeen déposé ko yow ngañ dem ba man nga xam ne Touré laa sant donc liste par ordre alphabétique la man bokk naa si ñu mujjee jàll dañ ma ne yow vendredi ngay jàll donc xoolal ñu war a def mercredi donc c' est dans ces condition là laa dem préparer sama dossier physique bi ci des desoon déposé daal di euh, def entretien yàlla def ñu bokk parmi ces vingt disons élus yu jàll mais nekk ci aussi troisième. bien sûr euh, ñu fàttali ne novembre 2022 ci lañ la affecté tribunal de grande instance bu Dakar sànq junj nga ko ci euh, wàllum carrière aussi parcours politique ndax 2015 euh, daanaka bokk nga si ñi nga xam ne xëy na amoon nañ bëgg-bëgg si wàllum politique ak géopolitique ba adhéré wu ci ay idéologie yoo xam ne panafricaine la beneen bi mooy 2017 nga def intégration sommaire ci de l'ONU urgence panafricaniste l'ORG autant pour moi urgence panafricaniste 2017 2017 ci nga dugg Pastef sànq yaa ngi koy wax liir nga livre Ousmane Sonko mais lan moo waral Ngagne Demba Touré en tant que déjà boobu étudiant nga parce que ñu fàttali ne ndaw nga 2017 xëy na boobu 30 yi sori na lool nga dugg Pastef. waaw effectivement bi ma commencé formation en sciences politiques et relations internationales Sciences Po ku ko xam xam ne dañ la jàngal administration publique di nga xam aussi réew ni muy doxee institution yi lépp lu jëm ci démocratie ci élection. module yu bëri yi ngay def il faut ngay suivre actualité pour mën a bokk ci ci ci yu gën a brillant aussi relation internationale il faut nga xam àdduna bi ni muy doxee donc j' amoon naa ouverture d' esprit ci géopolitique géostratégie ba léegi loolu moo ma gën a passionné sax que droit mm-hmm. euh, donc du coup bi may suivre loolu bu baax commencé woon naa intéressé wu ci politique sénégalaise mais dama gisoon fossé bi entre àdduna bi rythme bi muy daw ak Sénégal ñu baal ma mais politique bi ñu koy defee tellement c' était niveau bi dafa dafa desoon gisuma fi woon offre programmatique ñaareel bi aussi débat yi fi nekkoon ay débat wu processus électoral laa fi gisoon élection yi na transparent à l'époque je je je je que amoon na euh, front de résistance démocratique boo xam ne amoon na donc front boobu noonu Mamadou Diop waa fasoon na ci après Malick Gakou jiite ko mais front bi li ñu doon xeex mooy Macky Sall na respecter calendrier électoral bi donc référendum 2016 aussi suivroon naa bu baax débat yi ci amoon ci 15 points yi mais ba léegi dara doyuma benn jour laa xëy daal dégg ñu naan am na benn inspecteur des impôts bu ñu rajee donc ma commencer di intéressé wu comme ñëpp si li xew mais dama jàppoon ne bon day wax nii rek après bi ñu ko rajee comme ça ma toog ma xalaat ma ne waa ku ñu rajee nii comme ça inspecteur des impôts ñun ñu ngi waajal ENA parce que boobu defaguma ENA bi may naan mhm. lu ci nekk nga xam section impôt ak trésor ak douane ñi ñu jàpp nañ ne fa la weccet bi nekk <laughs> pas ci côté corruption mais peut situation fa la gën a tanewee mais kii comme ça noonu lay bàyyee carrière am ma commencé intéressé wu ci moom ma seetaan ko première émission opinion si seen télé fii yaakaar naa Ndeye Fatou moo ko dalaloon. non opinion non sorti sorti Ndeye Ndeye Fatou Ndiaye moo ko dalaloon benn dimanche mu sol yére bu weex ma suivre ko ma gis ci moom ne kii ku pertinent la maanaam li mu wax ci xam-xam la ko teg ba pare sacrifice bi mu def aussi xaw ma doy mais maa ngi continuer di suivre ba législative ma seetaan naat ko yeneen émission gis ne kii man moom laay votel moo tax dama demoon lijjanti ay affiche am sama benn xarit Saïd moo ma dem wëral ay affiche am autour de moi ma battre campagne pour na nekk député mais boobu comme maa ngi def sama licence en 2017 aw ma woon temps wàcc ci campagne mais ñi ma xam laa wax partagé ci réseaux sociaux yi ba législative mu nekk député période boobu nag duggoon naa benn ONG bu ñuy wax urgence panafricaniste parce que dama gëm les idéaux panafricains ay ndey ndogoy Babel Sow bi ngeen di dégg donc moom foo nekkoon mais man xamante mu moon ñoom directement j'étais en retrait parce que dama doon di jàng participé naa ci quelque marche franc CFA APE et cetera ma gis limite limitu mouvement yi mouvement yi na leen remercier ci li ñuy def mais dama jàppoon ne boo nekkul acteur politique nekkoo fi ñuy décider donc boo yorul mandat public nekkoo conseil municipal bu naan gox bi nañu nattal budget sàngam lii moo jëm ci éducation wala santé munoo nekk ministre buy jël arrêté munoo nekk président de la République jël décret munoo nekk député à l'Assemblée nationale pour wax loi bi baax na wala baaxul donc en réalité di nga participer à l'animation du débat public mën nga alerter les autorités comme rôle société civile mais en réalité foofu nga yem. foofu ngay yem si laa ne Ousmane Sonko doy na ma parce que moom laa xamoon ci Pastef après gis naa commencé on a découvrir yeneen figure Bassirou Diomaye Faye El Malick ma daal di ne damay dem jënd carte membre Pastef en octobre 2017. Mhm. octobre 2017 boobu la pour ñuy seetaan ñu fàttali ne boobu 24 ans nga amoon donc ñu ci à 23 ans ans autant pour moi octobre 2017 xam nga bi loolu ndaw na déjà nga nekk di intéressé wu ci ay idées mhm. ay idéologie yoo xam ne xëy na génn na sax euh, réew mi mais aussi ci wàllum politique ak actualité bi nga xam ne moo am ci réewum Sénégal ñu fàttali na ba léegi yaa ngi nekk ci autorité de régulation de Pastef ci la nommé bi tey loolu doon jaar jaaru sunu gan di maître Ngagne Demba Touré. alors mu nekk jaar jaar boo xam ne boo gisee ni ñu concentré woo mu nekk na jaar jaar boo xam ne bu am solo la parce que xam naa.